jaajëfal nañ leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bii di net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek ñi nga xamante ne rek yaakaar nañ ne jëwriñ ji nekk jëwriñ yi nekk ci gouvernement bu yees bi di Bassirou Diomaye Faye nag dinañ leen parrainé li ci mel ni lamb match de football ak yeneen activité yoo xamante ne rek dafa daal di neex wala leneen li nga xamante ne rek moom lañ pare pour dee leen bu yëbboo rek ñu daal di war naa su mbir mu nu mel ki ko wax nag du kenn rek ki nga dul ministre bi nga xamante ne rek moom la ñu dénk wàllum énergie ak ak pétrole ci sortie bu njëkkam nga xamante ne rek uh, daal dina koy def nag ca jour Korité ga ki nga xamante ne moom mooy directeur Abdou Khadre Sanoko mbir mu nu mel uh, gis ne rek période boobu nag kaddu yom ca wax rek jotul woon ndax nag fête bu mel ni Korité nga xamante ne rek uh, dafa dal di rëy lool ci taarixu musulman rawatina nag jullit yi bokk ci calendrier yi waroon na caa war a wax li nga xamante ne rek moom moo ñeel cohésion sociale maanaam daal rataxal diggante yi jàmm biir réew ak jàmmi xol yi comme nag dañ ko doon fête mbir mu nu mel daal daal di yëkkati rek rek moom jagleel ko suñu nattango yi RFM ne na contexte bi nga xamante ne rek ah, moom yooyu de mbir daal ak contexte bi nga xamante ci la nekk daal comme yàlla ak ma yàlli ne na nag lii di sociologie ci jëmmi boppam daal dafa gis ne rek kat bi nga xamante ne rek jawlin jooju daal dina koy yëkkati erreur de communication la nag li waral boobule erreur rek dafa daal di njort ne nag xëy na passation passage bi nga xamante ne rek def nañ ko nag ci opposition bi laataa ñu yëkk li nga xamante ne rek moom mooy pouvoir bi moo waral nag mu daal di compliqué yenn passage yi nag bu ko doon amal daal faw mu segg ko seggaat ko ba noppi rek soog koo mën a yëkkati ba tey rek ne na nag jot na rek ñoom ci seen jëmmi bopp nit ñi nga xamante ne rek ñu ngi koy xalaat moo di ne nag ñoom ci seen jëmmi bopp nag katuñ ci opposition bi jamono ji nag ñu ngi ci pouvoir bi te nag kaddu yoo xamante ne rek ndawal buur da koy yëkkati bala ma koo wax rek faw mu daal di koy seet seetaat ko ba segg ko mbir mu nu mel daal le directeur ki nga xamante ne moom mooy Abdou ko daal di yëkkati ba tey rek bu ñu sukkandikoo nag ci boobu la directeur di Sanoko nee na dak maire bu cees Nord ci jëmi boppam daal war na ut ñi nga xamante ne daal dañoo daal di xarañ rek ci wàllum communication ginnaaw nag moom ci jëmi boppam nag ab ministre la te ab ministre de la république faw rek mu am ay conseil en communication bu ko defee rek lépp loo xamante ne rek war na ko wax mu daal di koy eh, segg seggaat ko mu ne nag mbir mu nu mel moo nekk première sortie bi nga xamante ne rek daal dina koy def ginnaaw juum te bu mu ci def nag fii ñëppay juum ci kat nga xamante ne rek moom directeur Sanogo xam le jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné ba cloche de notification yi ngir mën a am